juróom-ñetti waxtu yu toftal fukki simili ak benn daal dinay jot autolet yéenekaay yi ànd ca Grégoire Gomme Grégoire ban yéenekaay la ñuy tàmbale tey Aïcha réew mi la ñu koy tàmbalee waxtaane li réew mi yëpp di coow bokk na ci coowal mburu mile wàññiteef day am ndeginite la ñu koy tàmbali ñoom ñi nga xam ne nag ñoom ñooy meññee nee na ñoo furaas daal di xëddeen duñu ko dégg coow nag am na ci farine bile jafe-jafe la ah, bu ñu sukkandikoo ci suñuy naataango yu réew mi bu ñu koy xayma nag ñàkk déggoo la kott ci loolee ñeel wàllu ko njëg ya jàpp leen sax na fi ñu toll nii ñoom ñooy la ñu xam ne daal moom mooy mbiru production ba daañu ko dakkal ndeginite ji ndaxte nag nee nañ bu ko xayma bu manqué ñaar téeméer la rek mooy xamante ne ni daanaka wàññi nañ ko ca te loole euh, duñu ko rek daal di financé ñoom mëñee daal daal di xam ne ne mënuñu nekk rek di jaay te duñu ca gis seen ak bopp ba tax na nag loole euh, bokk na ci dogal yi nga xam ne jël nañu ko ngir rek am euh, saafara ci seen nag jafe-jafe l'info yi kaay moom ci coow loole nee na ñoom nag ña ngay diirante mbagg ak nguur ak Sénégal bu ñu koy xayma ñoom yi lekk mëñee nag jàpp nañ daal ne régime bile ak la mu leen bëgg a def jamono ji arrangé wu leen ba tax na daal ñu ngi sàkku ci ñoom ab waxtaan bu ko defee daal ku nekk daal di gis boppam ndaxte nag li nga xam ne daal moom mooy TVA ba maanaam taxe ya nga xam ne daal ñu ngi ko cay fay bokk na ci loo xam ne tax na nag ñoom ñooñu ñëpp ñu daal di taxaw fëgg seen dënn rek waxtaane li nga xam ne moom moo leen ca naqari ak la leen fas yéene gaañ ci coowal la lu ni mel antenne yéenekaay moom ci loole daal jël na kàddu gi daal di ko jox Alioune Ndoye moom la mu xam ne daal moom jamono ji moom mooy yëf yi daal nuróowul sax dogal ndaxte nag nguur gi moom la mu xamle ah, moom mooy nag mbiru ko ah, diwlin gi suukar ba ci wàllug ceeb bokkoon na ci daal loo xam ne nii ñu ngi ko ci doon waxtaane ñoom nag lañ doon xaar moom mooy ay dogal yu am fulla ak fayda waaye daal jamono ji gisuñu ca lenn ba tax na daal jamono ji nee nañ ah, dañ leen di fàtte rek la nga xam ne moom mooy seen taxawaay ci gouvernement bu weesu ba ak tey ji li nga xam ne daal moom la ñu nekk di def bokk na ci ah, lam leen di ah, fàttali ci ëttug ah, yëglekaay bi addu jëmale ci mbiru ko Vox Populi quotidien mun nañu nag mbas mi di Covid 19 bàyyiwul Sénégal lakal na ko la jël ko wit bokk na ci daal loo xam ne nee nañ tax naw nag mu daal di fësal rek ne doot na fee dellu si ginnaaw nag aj maka bile bu ñu koy xayma daal diggante ñaar fukk la ak juróom-benn fukk ci téeméer boo jël loole ay kaala yoo xam ne daal gis nañu ko tukkee ci vol yi nga xam ne daal ñoom ñoo fa jóge waaye nag terewul jamono ji rek jëwrin bi gàlloo lépp jëm ci wàllu këwér gi yaram des jamono ji rek euh, di dalal xelu ko askan wi di xam ne daal ni ay kaa am na bu baax a baax bàyyeekoo ca booru ko ñoom ñëpp ay point yu positif lañ waaye nag jamono ji taxul rek euh, ñu a yenn suñu ko bopp wala boog loxo di dar gémmiñ la ñu war a def daal moom mooy wattu maanaam nag prévention euh, jëm ci loolee di mesure barrière ya jamono ji daal la mu xam ne moom mooy syndrome bi mu ngi fii ci cas yi nga xam ne jot nañu ko détecté les échos yi moom xëyaat na tamit a teg baaraamam ci ca lu ni mel waaye tamit gën a rek addu jëmale ci mbiru ko mëñe yeeg mburu mile nee nañ nag taxawal nañ rek dakkal loole di production bu farine ba communication la ñu wutaleeg le quotidien le quotidien mun nañu déclaration de politique générale ñu ngi koy xànn rek ci limaanu jorin ya di Ousmane Sonko waaye nag am na rek téeméeri hypothèse ya ca daal de lalu la nga xam ne daal mënees na ko def bokk na ci tamit loo xam ne yéenekaay bi xëy na daal daal di ko dëxañ ci xëtamu njëkk waaye tamit nee na député yi ñoom ñu benn yoon wala boog fàttewuñu rek ne mënees nañu rek wutali juróom-ñaari sage ya aji mbergaan kanute bu eh, benn bokk yaakaar daal nee na Ousmane Sonko moom dana ñëw ndaxte eh, mënuta ñàkk benn yoon ci ca wala lu ni mel le peuple moom ci loolee la mu def moom mooy naka samp ab laaj ndax ci ab motion de censure la ñu jëm jëmale ko ci Ousmane Sonko bokk na ci laaj ba mu samp ndax opposition bi tamit dana ko daaneel benn naka laaj la boo xam ne jot na ne ko fàng ca te mu njëkk nee na nag Ousmane Sonko jamono ji bu ñu xaymaa daal euh, feebar bi nga xam ne jotoon na ko jàmbat jamono ji bokk na ci daal loo xam ne ma jàmbal Diagne jot na ko sulli di xam ne sax ne Ousmane Sonko moom dana rek euh, taxawaat porté malaat jamono ji nga xam ne sax moom mu ngi fàtte rek ni euh, DPG daal wax na ni loolee faw mu taxaw waxtu yu yàgg yoo xam ne daal ne na loolee dana wute lool ak li nga xam ne daal xam ne na woon na ko ci wàllu ko wér-gu-yaramam loole daal bokk ci loo xam ne euh, ab feebar la boo xam ne daal bu ñu sukkandikoo ci euh, moom la nga koy euh, dire di dire kook moom tamit ba muy nekk ndaw ba léegi waaye terewul tam muy fàttali tamit ne juróom-ñett fukk ak ñetti député yu benn Bokk Yaakaar ñoom jamono ji ñu ngi tamit ngooy ci bilek DPG bu premier ministre diggante ay risque ak yeneen yu ni mel le peuple yéenekaay daanaka bàyyiwul dara amadu Ba moom mu nga tey ci ca boruka qualifié moom Macky Sall ak Alliance pour la République jamono ji yéenekaay bi daal seq moom waxtaan waaye tamit dellu siwaat ci li nga xam ne euh, moom mooy la mu daal di woon poste mel ni daal amadu Ba jamono ji taxawaayu ka euh, fippu la taxawee bu ñu koy xayma direct si ñëw nag nañu loolee ab euh, vrai faux départ la mel ni daal yëf yi euh, mu nga niroo daal leneen ci tukki yëglekaay bi dinañ nag euh, li nga xam ne jot na ko def ci ab texte bu mu daal di publier ñu tuddee ko nouvelle responsabilité dafa mel ni daal jamono ji loole la muy nirool du leneen daal lu dul amaat beneen ko taxawaay boo xam ne nii fësalu ci ab engagement bu am solo l'indépendant yi ni kaay moom tey ji xëyaat nag ne fang njabootuk Wade Baye Diack doom ja Karim ak Abdoulaye Wade seen ak diggante njiitum réew mi Bassirou Diomaye Diakhar fay mi ndar képp nag coow li jamal rek ci libéraux yi nga xam ne gisuñu leen ci gouvernement bile moom Bassirou Diomaye fay la muy xamle moom may woon a Karim Wade nag laata moo taxawal ab gouvernement ngir waxtaan ak moom ci loole waaye daal la ma ko tontu moom mooy eh, ndimbalu PDS daal amul benn condition Sud Quotidien moom nañu nag ci mbiru ka njiitum réew mi rupture ba ma ngay dox ginnaaw nag ndaje li nga xam ne am na ko diggante ak njiitum réew mu France yéenekaay bi daal desandi tamit di waxtaane la nga xamante ni moom moo ruus ca waxtaan wa xëy nag jël kàddu gi jox ko Jean-Luc Bia Jean Bia gi ak ak nga xamante ne ni moom mooy Bakary Domingo Mané nekk ñoo xamante ni daal seen ak xam-xam màcc na lool ci xayma coowal lu li mel la tàggat yaram stade yéene kaay nañu Brésil bu Vinicius Junior dana nag tàmbali euh, Copa America bu une heure du matin jotee ne génn ëllëg waaye nag laata loolu rek jàppale nag ni ci mbiru ko euro 2024 mille Espagne moom jël na p ba pare ci groupe fas ni rek euh, yeggali yëf ya digganteem ak Albanie waaye daj dëpp ga ñu ngi koy xaar diggante euh, ñi di waa Italie la squadra azzurra ak ñooñee di waa Croatie bu Luka Modric mu mel ni daal jamono jooje ñoom ñaar ku ci am ndam da décembre bi lee ko compétition Aïcha ana fu wanneen si dimu njëkk gëtam bokk na ci tey ji la ñu samp ne gi ne ab laaj fii lay ni kaay yëm